noonu ñu daaj yeesu ci bant ci diggante ñaari sàcc di matal li yonent yàlla waxoon lu jiitu ay téeméeri téeméeri at bu boom xamkat lu doy waare ngi <laughs> déedéet bu ko xotti nagal ñu tegoo ko ay bant waaw nangu naa loolu jël naa ko déedéet yow soldaar sa tegoo ay bant yéreem yi Papis jël na ko. loo koy def nag léegi. xamaguma ci dara.